لا يلا بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ci suratul baqara ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala tey ñuy jël ñaari aaya muy aaya 178 aaya 179 ñaari aaya yi nekk sunu kanam borom bi subhaanahu wa taala daf ñu ciy jàngal ñetti mbir bu ci njëkk mooy yoonal gi nga xam ne atte gi nga xam ne islaam atte na ko fayu ku rey nit lan lañ la war a def tollale gi nga xam ne islaam tollale na ko ci góor su reyee góor dañ ko war a rey jigéen bu reyee jigéen dañ ko war a rey jigéen bu reyee góor dañ ko war a rey góor bu reyee jigéen dañ ko war a rey alqaatilu bima qatala bihi mutamathila ku rey rek la nga rey dañ la war a rey ca la tax nga rey ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne almaru maqtulum bi ma qatala bihi nit lu mu rey rek dañ ko koy rey wa lamma kaana alabdu muqawaman bilmaali fa innahu la yuqtalu bihi alxurr bal yadfau ila sayidihi maalu mu des benn atte bu nekk ci biir atte yi mooy jaam su reyee gor dañ koy rey amma gor su reyee jaam lenn ci àtte saxaaba yi ak borom ngiir yi mooy dañ koy xiima lu waral loolu mooy jaam comme dañ koy jënd di ko jaay te lépp lu ñuy jënd di ko jaay dafa am prix kon gor bu reyee jaam ca jamono yooya ñuy jënd jaam di ko jaay dañuy xiima jaam bi lu muy jar mu fay sangam alal bu toll noonu moo tax gor bu reyoon jaam ci jamono yooyu kenn du ko rey wa bi hada hakama sahaaba li la sahaaba yi atte woon wa taabi'un ak ña ca toppoon wa alayhi al aimma asalaasa ñetti borom ngir yi tamit lii mooy seen atte mooy gor bu reyee jaam kenn du ko rey ndax loolu imam malik loolu la atte shafii loolu la atte ahmad loolu la atte wa xaalafa abu hanifa abu hanifa moom dafa wuute ak ñoom lu tax moom dafa gis ni même jaam boobu sangam rey gor googu rey jaam dañ ko war a rey lu tax mu ne yàlla moo ne ci quraan inna nafsa bin nafs moom loolu mooy dalilam bakkan dañ koy rey parce que dafa rey bakkan moom loolu la àtte mu génn jamaa génn àtte ñële moom buñ ko laajee sa dalil mu ne fa yuqtalul xurr bil abdi dañuy rey gor ndax jaam axzan bi zahiri haadihi l aaya ndax dafa jël aaya bi aaya bi lan la wax inna nafsa bin nafs bakkan dañ koy rey ndax bakkan ñaareel li ñuy jël ci ay njàngin mooy mahasinu shari al islami rafetaay taar bi nga xam ne islaam taaru na ko rafet na ko wa ma fihi min al yusri wa rahma ci yombute gi nga xam ne lislaam dund ko yomb na yërmande bi mu ëmb ay su ajaazal af ndax islaam daganal na daganal na ñu rey nit ba pare ñu bañ a rey ki rey lu tax parce que ay mbokkam dañoo bale islaam daganal na aussi loolu ñu naan diya mooy joxe ndàmpaay nit rey nit ba pare ñu jël ci moom diya jox ko mbokk ki mu rey badalan anil qisaas ñaar yooyu nag dañuy remplacer fayu wala ñu jàpp waa ji rey ko su ay mbokkam nangoo ñaar yi baal ko walla ñu jox leen diya waa ji ñu bañ koo rey loolu yëpp day wone ne lislaam dafa yomb dafa wone ne lislaam dafa ëmb yërmande ñetteel ci ay àtte yu ñuy jëlee ci ñaari aaya yi mooy balaagatul quraanul karim alquran dara dax koo wax lu waay xam-xam lu waay jàng lu waay mën a wax bu ñëwee bu tee rek ci alquran rek daal di daal di daal di daytalu daal di taxaw ak ku mu mën a doon leen di wan ne alxuraan mënta tolloo ak nit ci loo am mooy tey téere bi ñaata nit ñoo koy tafsir ci àdduna ñaata tafsir lañ ko tafsir ñaata firi ay ñaata ngeen ci dégg boroom xam-xam yi ca jamono yonent bi ba fii ñu toog ba fii ñu toog boroom xam-xam yi ba tey rek mënaguñoo jeexal téere bi lu ci nekk ci xam-xam mënaguñ ko lu tax tey wane ne waxu yàlla la subhanahu wa taala mu ne alquran fekk na arab yi ca ceddoga daan wax ne alqatlu anfa lil qatli alquran daa di ñëw fa qaala walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab fa lam yazkur lafza alqatli bilmarra fa nafaahu lafza alquran ñëw na fekk gaa yi di jaay ràbb wax naan ci seeni wax alqatlu anfa lil qatli rey rey gi gis nga fi alqatlu anfa bil qatli dafa bamtuwaat bam bi ñaari yoon alquran bi mu ñëwee moom dafa ne walakum fi qisaasi xayaat ku rey nit nañ ko rey bu ngeen ko defee da ngeen ci am dund da ngeen di dund alquran ñëw di garder nit ñi tëral leen ay loi ay yoon yoo xam ne léegi insha allah bu ñu duggee ci aaya yi di ngeen xam ne alquran dong dong dong dong moom mooy dëgg leneen lu dul moom safaan la kon ixwaan yi ñaari aaya yi mooy nekk sunu dars su tey ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci sabaat mu tënk suñu làmmiñ aar ko ba duñ ci dugal ay njuumte أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سنو برم سبحانه وتعالى من يا أيها الذين آمنوا يا حرف النداء يا ci arab baatu woote la saa yoo ko déggee rek mooy dañ lay woo yaa mooy ee yàlla mooy woote ñan lay woo alladina amanu yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm abdullah ibnu abbas xibrul umma nee na soo déggee yaa ayuha alladina amanu loo doon def taxawal bàyyi li nga doon def ak lu mu mun a doon taxawal déglul daf lay wax defal wala mu ne la bàyyil daf lay digal jëf boo war a jëf wala bàyyi boo war a bàyyi Aboubacar Jaabir Aljazair kii tafsir tafsir bi ma yor muy aysaru tafasir am na beneen téere bu mu bind mu tudde ko nidaatu rahman yaa ayyuha allazina amanu yi ci alquran yëpp la jël def ko benn téere mu tudde ko nidaatu rahman woote yàlla yi yaa ayyuha allazina amanu yi ee yéen ñi gëm lii dafa laaj déggin su yàlla ne ee yéen ñi gëm kon am na ñu mu bàyyi ci adduna bi ñu baree bari kon am na ñenn ñu mu ciblé ne ee yéen bu ñu ne woon ee yéen tukulóor yi am na ñu ñu waxalul alaysa kazalik kon ku dul tukulóor rek booy ba nga dem doxi say soxla ee yéen séeréer yi ee yéen joolaay bu ñu ne ee yéen nit ñi nag ñëpp dugg nañ yaa ayyuha allazina amanu kon am na ñu génn am na ñu yàlla génne ñi ban baat la leen yàlla woowe mooy al iman ee yéen ñi gëm kon ça veut dire que lii lii ñu leen di wax comme da ngeen a gëm ki leen koy sant moom ngeen gëm kon lu mu leen wax amatul ngeen di sikki sàkka maadaama moom ngeen gëm mu leen di woo kon lu yomb la war a doon su fekkente ne in kuntum muminin fekkee gëm ngeen yàlla in xarfu shart la fekkee gëm ngeen yàlla lii yàlla di leen doyee day yomb ci yéen ndax yéen yéen ne gëm ngeen moo tax yàlla woo leen ci baatu ngëm googu mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm kutiba farataaleef na sàkkeef na sàkku nañ ci yéen sant nañ leen digal nañ leen kutiba farataal nañ aleykum ci yéen alqisaasu fayu alqisaas alfaau faau sababi sàkku nañ ci yéen fayu lan lañuy lan la ñuy fayu ci kan la ñuy fayu lan la def ba ñuy fayu ci moom fil qatla ci ku rey nit al qatl wal qatla jamu qatil wa huwa alladi azhaqat ruuhahu fa maatat bi ayi aala mooy ku rey nit danga koo dóor mu dee danga koo jam danga koo fetal danga ko mbëkk danga ko rendi aye bi baax na ci suñu jamono bii de démb vendredi dégg naa rey nañ ñetti nit wala déggu leen loolu démb démb du la woon vendredi n'est-ce pas démb dégg naa rey nañ ñetti nit ndax élection yi campagne sacrifice ah moo tax dundu dis islam rek mooy dëgg gis nga ñooñu ñu rey perte nañ ña leen rey du ñu feeñ ba yowmal qiyaamati bu ñu feeñee te amul njëriñ waaye xoolal lislaam lu mu wax islam kon mooy diine boo xam ne bàyyiwul dara lépp sunu dund gi yàlla def cee wax amu leen lenn lu ngeen di jël fi ngeen toog lenn ci mbiru dund bi ngeen wax ci lu dul yàlla wax na ci xoolal luwaa yi ndeke alxuraan ay luwaa la ñun jàpp nañ ne tey alxuraan benn téere barkeelu la boo xam ne ku dee rek ñu ñëw ñu pare ñu jox leen dix dix mille ñu séddoo pare jàpp nañ alxuraan téere barkeelu la ku nekk rek teg raay boo xëyee suba daal di raay diw sa kanam wala jàpp nañ ne alxuraan benn téere la boo xam ne dañ koy takk ay ndombo di ko takk suñu ndigg yi fekk alxuraan ay luwaa la maanaam misaal aaye bii yàlla di wax tey naan farataal nañ ci yéen fayu fil qatla ci ku rey nit alxurru gor dañ koy rey bil xurri parce que dafa rey gor dangaa rey gor dañ lay rey ku rey nit dañ ko war a rey alxurru gor bil xurri gor bu reyee gor yàlla nee na dañ ko war a rey wal abdu jaam bil abdi bu reyee jaam ñu rey ko wal unsa bil unsa jigéen bu rëyee jigéen dañ ko war a rey gis ngeen ku rey dañ la war a rey yuqtalul xur bil abd war rajulu bil mara gor su reyee jaam dañ koy rey góor bu reyee jigéen dañ koy rey yéen fii lan mooy seen àtte ku rey nit ah ñu yóbbu la tribunal jugé la daal la tëj nañ ko cinq ans cinq ans mu génn di dox ay soxlaam ci l'islam ku rey nit dañ la indi rey la lu dul ay charte yi ci nekk dañ lay indi rey la surtout nag boo ko rey boo ko teyee surtout léegi la xew ci jamono jekki-jekki rek génn sa jaasi waaw song nga gis nit ñi daw nga daw ba jàpp waa ji rey dem sa yoon ndeysaan dañ may nettali ci benn marché marché HLM benn waay boo xam dafa génn kaso ay fan ñëwaat da ci koñ bi am ku mu xulalaat rek dem dem indi ji paakaam dàqi waa ji jam ko waa ji daanu deewul de mu jàpp sidditu tànk yi di ko dagg dagg sidditu loxo yi dagg sidditu tànk yi siddit yu mag yi de ah mu dagg ñaar yëpp dagg loxo yi daal di koy bàyyi noonu xoolal kooku kooku mooy say day dee waa ji di xëccu di xëccu ba seddu gi ci kanamu nit ñi ñëpp taxaw nit ñi taxaw di xool fekkoon ne lislaam la nga fexe ne loolu dina am xam nga yéen da ngeen a nangu pombiteer bu nëpp ci saaku nu ngeen koy def dangeen koy génne saaku sànni sinon mu nëbali ci des yàlla bu xoolee benn nit ci société bi mu ne kii nit ku nëb la seen ko bàyyi société bi da koy yàq ngeen ne déedéet yàlla dafa soxor nañ bàyyi nit ku nëb kooku ci société bi nu muy def yàq société bi ku rey nit da ngaa yàqu nga suñ la bàyyee da ngay rey keneen islam mooy dëgg ëpp ñu yàlla yërmande alaa yaalamu man xalaq wa huwa latifu lxabir yàlla ma ne maa bind maa xam maa xam li baax ci yéen moo tax ma ni lii la ku yàlla ne nañ ko rey rek bu ko fi nit ñi bàyyee rëcc ko parce que pombiteer bu nëb la nit ku nëb la ci biir société bi suñ ko fi bàyyee day yàqu société bi xoolal njaalookat ki bàyyi jabaram dem ci jabaru jàmbur yàlla mu ne nañ ko raj mu ki bàyyi jëkkëram dem ci jëkkër jàmbur yàlla mu ne nañ ko raj mu suñ ko fi bàyyee lu xoolal léegi lu xew tey samedi samedi samedi passé comme tey laay déglu rajo bi wal fajiri ci guddi benn femme naan non am naa benn paa boo xam ne appartement la ma luweel paa bi nag bon dafay ñëw rek mais du fi fanaan mais nag bon du fi fanaan rek daal mais duñ def dara waaye ma ne ndeysaan waaye ndaw si daal moo dafa yaakaar ne ay dof lay waxal waaw yooyu yomb na trop maanaam ay jigéen ñoo xam ne li ñuy li ñuy wax ci rajo bi boo ko déggee guddi gi yëpp doo nelaw bu fekkee ne am nga tarfatal ay ni ci imaan tey daanaka borom jëkkër yi ñoo gën a mun a fo maa l'islam day setal société day aar nit ñi day ñoŋal day wattu moo tax yàlla mu ne alxurru gor bil xurri dañ koy rey parce que dafa rey gor wala abdu jaam dañ koy rey bil abdi parce que dafa rey jaam wal unsa jigéen dañ koy rey bil unsa parce que dafa rey jigéen waaw ku rey dañ laa war a rey ci dars yu leer tomb yu leer waaw lu dul ay sette yu ci am ci biir waaye ku rey rek dañ laa war a rey sunu borom subhanahu wa taala tëral santaane gi yoonal ko ne dañ ko farataal ci yéen alqisaas mu ne faman ufiya lahu min axihi shay'un képp koo xam ne nag tanazala lahu waliyu dami jéggaleef na ko ka ko jéggal kan la faman koo xam ne ufiya lahu jéggaleef na ko min axihi ci mbokkam shay'un dara ñi ñu ki ñu rey ay mbokkam ki sës ki moom ay frère am ñoo ñëw ne baal nañ ki ko rey su boobaa luy xew dañ koy wattee ila diyati mu joxe ndàmpaay kooku kenn du ko rey wala ñu ñëw ne du ñu jox ndàmpaay waaye baal nañ ko al afu jéggal nañ ko su boobaa ji kenn dootu ko reyati waaw waaye bu ñu bu ñu waxul laajuñu dara waa jooju dañ koy rey suñ ne jéggal nañ ko kenn du ko rey buñ ne nañ ñu jox idée ñu bàyyi ko kenn du ko rey ki rey ak ay mbokkam wala moom bu amee wala ay mbokkam ñooy dem lijjanti ji li ñu wax ne loolu mooy ndàmpaay li mu daal di koy joxe loolu moo tax ku rey nit foofu ci ñaar yooyu moo tax ñu bàyyi ko parce que day joxe ndàmpaay wala mu joxe wala ñu jéggal ko lu ci tegu mooy wa adaun ilayhi bi ihsaan joxe gi it wa adaun joxe gi ilayhi ci moom yakunu bi ihsaanin wa an yakuna adaau diya bi ihsaanin xaaliyan min al mumalatati wa naqsi duñ doo wax ne nangam laay joxe ba pare ñu ne nangam boobu la mu am ay fan nga commencé fàtte di ko wanaan da ngay wàññi yàlla mu ne wa an yakuna na nekk aada uddiya joxe ndàmpaay googu bi ihsaanin ci rafetal na nga ko joxe ba mat bul ko mankeel bul ko yàggal diir bi bul ko wàññi temps la génneel temps bi joxe xam nga yëpp bu ñu ko doon dund tey ci suñu société jàmm rek moom mooy am bu mu ko mankeel wala yuqallil la aqbala illa alqisaas bal alayhi an yaqbala ma afa anhu axuhu min alqisaasi awi diya awi afwi su boobaa waa ji nga xam ne moom la ñu jéggal na joxe li nga xam ne moom lañ sàrt ci kawam ci li mu war a joxe mu nekk ndàmpaay pour mbokk ki ñu rey sunu borom subhanahu wa taala mu ne zalika loolu taxfiifun oyofal la zalika al hukmu atte bi al aadil ak atte bu maandu bi arrahim bu ëmm yërmande bi wa huwa jawaazu axzi diya te mooy jël ndàmpaay badalan min al qisaas ñu remplacer ko fayu taxfiifun ankum loolu oyof la pour yéen xam nga ñu tëral di la rey dafa metti kon bu yàlla ne waa ji nangu nañu mu joxe diya kon taxfiif la oyofal la bu yàlla oyofal ci seen kaw waaye ci luwaa yu njëkk ya amul woon da ngaa rey nit dañ lay rey ci lislaam nag nangu nañu jéggal la nangu la nga joxe ndàmpaay moo tax mu ne loolu taxfiifun oyofal la min rabbikum ci seen boroom isa kaana fi shari qablakum alqisaas faqat awi diya bu njëkk ba ci sharia yi mooy da nga joxe diya fal force wala ñu rey la fii nag yàlla oyofal ne mën nañu am njéggal wa antum muxayaruuna bil afwi yéen yéenay tànn njéggal da ngeen di baal waa ji awi diya wala day joxe ndàmpaay awil qisaas wala da ngeen di fayu ñetti mbir yi da ngeen ci tànn benn rey nañ sa mbokk da ngay fayu jeex na kooku xam nañ ko dañuy tëral waa ji rey da ngay joxe diya kooku leer na da ngay jéggale boobu leer na ñett yi nga tànn ci benn sunu borom subhanahu wa taala mu ne famani attadaa képp ku jéggi rek képp ku jalgati baada zalika ginnaaw lii nan la waa ji di jalgatee mooy mu ne man dañ may jox diya ñu jox ko ba pare mu dem rey mbokki mu dem rey ki reyoon waa ji lan mooy àtte bi moom nee na man dañoo reyoon sama mbokk waaye bëgguma fayu nañ ma jox alal ñu jox ko ñu jox ko ba pare nit ñi defe ne jeex na mu dem gàddi jaaseem wala pistoleem ko ji waaji daal di koy dóor bal ci bopp kooku moom dafa jalgati dëgg moo tax yàlla mu ne fa man itada yuridu lan la waa ji bëgg axza diya dafa bëgg jël ndàmpaay summa qatala après mu dem rey fa innahu yutaayanu qatluhu la gayr kooku moom dañ koy rey amul leneen boroom xam-xam yi daal di séddoo ci waa ji ñetti mbir ñu ne waa jooju nga xam ne dafa jalgati fa man ittada baada zalika waxtalafa fi hada al azabul alim borom xam-xam yi wuute imam malik ak shafii ñu ne waa jooju dañ koy rey ñenn ñi ne dañ koy bàyyi ak imam bi mooy xool lan la koy def atteem imam bi moo ko yor lu ko ci neex rek ñu daal di koy def waaye xam ngeen ni ku ne baalaate naa ba pare ah ñu yaakaar ne noonu la jox la alal nga wiiri koñ daal di rey waa ji defoo lu maandu la nga waxoon defoo ko moo tax mu ne ixtilifa fi man qatala baada axzi diya borom xam-xam yi wuute nañ ci nga ki nga xam ne dafa jël diya ba pare ndàmpaay ba pare daal di rey qaala malik wa shafii wa kasirun min al ulama borom xam-xam yu bari daal di tënku ci waxu malik ak shafii boobu ñu ne huwa kaman qatala ibtidaan ñu ne mu ngi mel ne rek waa jooju mi ngi mel ne ku reyoon ku deful dara kenn du xool léegi waa ji la mu defoon bu njëkk ba parce que moom moo ne woon nañ ko jox ndàmpaay ba ñu jox ko kon léegi kenn du xool lu njëkk loolu déedéet ku mujj ki rek la ñuy xool lim def moom dafa mel ne ku rey nit ca commencement ba inshaa wali yu qatalahu bu neexee mbokki waa ji ñu fayu rey ko wa inshaa afa anu bu leen neexee ñu baal ko wa azabuhu fi l axira waaye mbugalam mu ngi ci sunu borom subhanahu wa taala al axira wa qaala al axirun ñeneen ñi ngi ne azabuhu mbugalu waa jooju an yuqtala dañ koy rey wala yam wala yumkin alxaakimu alwaliyu min al af ñu ne ki gouverner imam boobu ki fa nekk du ñu d'accord mu daal di baal waa ji wa qaala omar ibnu abdul aziz omar ibnu abdul aziz mu ne amruhu ila al imaami mu ne mbir moomu kenn du ci wax mbiru waajooju kenn du ci wax de omar ibnu abdul aziz nee na mbiru waajooju dañ koy bàyyi ak imam bi jiite jullit ñi moom mooy seet waa ji lim ci lim ci bëgg rek mu daal di ko ciy def parce que waa ji dafa wor sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa man ictada képp ku jalgati baada zalika ginnaaw lii yàlla wax ay atteem falahu kooku jalgati am na azabun mbugal alimun bu metti te mooy moom it dañ koy jàpp rey ko parce que dafa jalgati atte yàlla aaya bu mujj bi muy aaya boo xam ne réglé na sunu àdduna lépp lu ndaw li ba ci lu mag yàlla mu ne walakum am ngeen fil qisaasi ci fayu ku rey nit nañ ko rey am ngeen ci xayaatum dund fekkoon ne tey ku rey nit ñu rey ko ñëppay dund kon doo gis nit ñi di yatt ay gourdin ñii di dem di defari jaasi ñii di dem di jëndi ay pistolet yu rey nit tey ni mu yombe ci ndakaaru ba ñuy xëy naan fekk nañ ku ñu rendi fee dékk deret bi ci ay paan fekk nañ fale ku ñu di saam saam nit rey nit di ko saam doomu aadama bu demee ba rendi nit léegi yow jëlatoo bal pistolet dóor jëlatoo yat da nga koy tëral rendi ko soo paree jël jaasi di saam ba mu nekk ay morso nga su doomu aadama tollee foofu kooku kan moo yaakaar ne kooku dina baaxati moo tax li ma la waxoon sànq yàlla subhanahu wa taala bu ne ñu mel nii nañ leen génn ci société bi waa société bi lànk luy xew nit ñi ëpp ñu yàlla yërmande ñi naan ku rey nit nañ ko rey loolu sauvage la loolu normalul tey da ngay gis dëkk bi yëpp am na loi yoo xam ne Abdoulaye Wade fii dafay fekk ku rey ni dañ koy rey mu dem dindi loi bi da koo dindi assemblée nationale fekk ñu woote fii donte ne Sénégal état laïque la Abdoulaye Wade li mu fi fekk ci Sénégal bi mu ñëwee mooy ku rey nit dañ ko rey mu dem dindi loi bi parce que adduna bi dañuy woote ne ku rey nit kenn du ko rey maanaam bokk na ci ni ñuy yàqee dañ naan ku rey nit buñ ko reyee ki ko rey dañ ko war a rey parce que moom dafa rey nit te pourtant ñoom dañ koy bañ su ko yàlla waxee mais tey kenn ci premier ministre yi wala président yi wala nangam ku le tey Abdoulaye Wade ku ko jekkoon ak pistolet ne nii ba ñu xam ne da nga ko bëgg a rey bu ñu la jàppee nu ñu lay def ah waaw te boo ko defoon nit ki nii kenn du ko rey loolu moom loolu ban àtte la ki bëgg a rey président bu ñu ko jàppee dañ koy dañ koy rey parce que dafa bëgg a rey président. ki bëgg a rey nag Samba Ndiaye fële moom ñu jàpp ko dañuy dem tëj ko ñetti at juróomi at ah léegi président ak Samba Ndiaye lu leen tàqale xanaa Samba Ndiaye du nit président mooy nit nit nit kese la nit yàlla moo ko moom waaw wala Senghor ak Moussa Fallou Moussa Fallou ba léegi ay mbokkam xamuñu fu mu nekk dañ koy après ko tey ñeneen ñi am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen rey fii lan lañ ubbi buntu rey nit mu daal di yomb yomb trop te yàlla subhanahu wa taala li mu tëral mooy suñu ko defee rek dund walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab gis nga yàlla lu mu yokk ci mu ne yaa u yéen borom xel yi suñ defee analyse ñun ñëpp xam ne li yàlla wax mooy dëgg moo tax mu ne yaa ulil albaab fi yàlla borom xel yi lay waxal ku rey nii nañ ko rey buñ ko fee dëkk bi yëpp am jàmm oto yi dootuñu rey nit ñi da ngay gis fi chauffeur laa wax de chauffeur bu nekk ci oto jékki-jékki kenn traversé mu freiné ne ko am nga sens ma daal di koy wax lu bon boo taxawee rek ma rey la taxawal nga gis koo xam ne yow ren taxawal booy taxaw ma lay rey nga gis rey nit nga gis ko koy bàkkoo nga gis bandi boo xam day jël jaas yi nan damay rey waa ji dama koy rey nit ñi di caaxaan mu rey ko après fu muy mujj ak bakkan ni mu foore bakkan yàlla ne man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamian ku dundal benn nit mu ngi mel ne dundal nga adduna yëpp waaye wa man qatalaha fa ka annama qatala nnaasa jamian yàlla yemul ci loolu mu ne man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam gis ngeen rey nit ma nga tàmbale woon ci histoire Qaabil ak Haabil yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na keroog ba Qaabil reyee Haabil ba tey ku rey nit rek Qaabil dina am ci bàkkaar bi dañ ko ci dindil mor sa jox ko moo tax def lu bon bon man sanna fil islaami sunnatan hasana man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a lu bon boo ko xasee tàmbali ku ko defati ci àdduna rek nga am si sa cër ak ku ko def fu mu mën a nekk sa daggit daf lay fekk sa saam daf lay fekk xoola xaabil boo ba léegi ku rey nit rek ñu génneel ko wàllam baa dina bi nar a jeex yàlla dafa tere deret ad dimaau laha xurma yàlla dafa ormal bakkan bakkan yàlla da ko fonk hatta sax bu dee yéeféer la yonent bi saa sallam nee na man aza zimma képp ku tooñ étranger nga tooñ ko mu ne faqad azani man nga tooñ waxuma laak nag waxuma laa étranger waaye ñu jàpp gor yi di leen rey ah fan yi moom Sénégal li fi dee ci ay nit kenn xamul nu mu toll ñaari weer yi te loolu teguñu ko fen lu dul ci mbiru àdduna xëccoo nguur xëccoo àdduna loo xam ne boo ci nekkee it fii ngay dee bàyyi ko dem ci yàlla dem ci yàlla ay loxoy kese nguur gi nga xam ne adduna bi nga xam ne yàgg yàgg yàgg yàgg loo ci noos noos noos noos bu yàggee ba yàgg ba yàgg même boo doon lekk chaque jour ginaar ginaar ginaar ginaar boo demee ba ci yàgg kuy neeti ginaar mu soof la oxola am na président yoo xam ne am na roi yoo xam ne seen mujjantalu dund da ngay dégg ñu ne rey leen ma pikir leen ma ma dee koo xam ne soo nekkoon ci tali bi ñëpp la ñuy wàccee sooy wax ñëpp déglu boo duggee ci saal ñëpp taxaw sooy wax ñëpp noppi nga mujj naan rey leen ma pikir leen ma ma dee ana noos gi nga doon noos démb ana nguur gi démb gi ñaata ñaata ngeen xam ci ay milliardaire tey yu nekk ci biir suuf ñaata ana seen noos googu ñu doon noos loolu moo tax alxuraan fi muy waxee ñun ñun du ñu dégg yàlla nee na bal tusiruuna alxayaata dunya yéen da ngeen a gënal àdduna waaye wal axiratu xayrun yéen nag àdduna rek ngeen gis moo tax ngeen dundal àdduna waaye alaxira moo gën te mooy des xam nga lu tax diggante ñaar yooyu du benn yàlla bëggul nga dundal àdduna bàyyi alaxira c'est parce que àdduna li ma fi waxoon sànq moo ci nekk mooy yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg après day jeex ak alaxira nag du jeex ba pare ñoom ñaar yemuñu mooy méttitu àdduna mi ngi yem méttitu àdduna àdduna lu ci gën a métti mooy dee soo dee jeex na alaxira nag méttit yaa ngi tàmbalee alaxira li fa gën a tuuti ci musiba mooy dee moo tax waa safara bu leen yàlla lakkee ba ñu ñor dañ naan yàlla rey ñu wala dee la ñuy bëgg fii kenn kenn bëggul dee te ñu ne yàlla rey ñu yàlla mu ne dee amatul fii kenn bëggul dee mooy dee fii la yem musiba bi gën a rëy mooy dee fële musiba bi gën a ndaw tàmbali tàmbali moom mooy dee allahu akbar moo tax du benn kon yii ngeen di gis tey ci àddina bi ci xëccoo ci nangam nangam ba jar ñuy tër doomu aadama di rendi di dindi bopp di dagg làmmiñ di dindi ay xol di dindi ay res ndax ay nit yi la ko laaj boo ma indilee boppu nit boo ma indilee resu nit boo ma indilee xëtëru nit boo ma indilee yeelu nit la ilaha illallah nga jël nit di dégg naa démb benn xale bu jigéen boo xam ne dañ ko sarax benn mbuus mu dem seen kër jox ko yaayam yaayam ne nii rek gis loxo nit loxo loxo nit billahi wallahi taala yi ki ma ko nettali sama idaara la ma ko nettalee mu ne ma seen koñ la nee na loolu la fekk seen koñ bi mu wàccee ci ngoon loxo nit ñu jox ko benn sarax ko benn nit loxo nit ana yaram ba dégg ngeen ki ñu rey gàddaay bopp bi gisuñu ko ah ki ñu rey barki démb daf ko saak bi gàddaay gisuñu bopp bi ana bopp bi ah am na xale bu ñu rendi dafa ne dee na ñu bàyyi ko noonu xale baa ngi urgence ki ko rendi dafa yaakaaroon ne dee na ndeke deewul xool xoola yii ti benn vendredi ñu yéen nit ñu bëri di rey pourquoi yooyu yëpp lan la kon gis nga lii ñuy nekkee yëpp li ko waral mooy ñàkk dund diine bu ñu bëggee am jàmm dañuy delluwaat ci yàlla wax yàlla moo bind nit ñi moo leen moom yàlla moo tëral ay luwaam beneen luwaa bu fi beneen waay mën a indi daf ñuy nax rek luwaa bi mooy luwaa bu baax bi mooy luwaa bi gën ci ñun mooy luwaa bi yemale sàmbaak dembaak moo doog paateeg ñàpp waaye luwaa yi nit yi ñii ñooy ñu ñii ñooy Muhammad ñii ñooy Mamadi yi ñii ñooy ñu baax ñi ah fi mu nekk nii su ngeen jàppoon benn waaye bu sàcc fii ay dàll ci buntu jàkk ji bu ñu jullee gee ba pare ngeen jàpp ko dafa sàcc ñaari peeru dàll nu ngeen koy def ngeen koy dóor wala ngeen yóbbu ko police bu demee ñu dugal ko ci giri bi tëj ko alayhi kazaalik wala du noonu la tey yéen a ngi dégg ñu sàcc milliards kenn du leen laal ñu détourné ay milliards tëdd ci bañ nañ ko ba ñaari baat yi du benn ku sàcc daal nañ naan dafa sàcc ñaari ku ku jël ay milliards ñu ne noonu sàccul dafa détourné lan mooy différence bi gis nga nit ñuy naxee ku xeex ngir diine ñu ne terroriste ku xeex ngir parti bi ñu ne ah démocrate la gis nga tey yow boo taxawoon ne diine bi nangam nangam ñu ne kii terroriste la boo taxee na parti bi ñu ne kii démocrate la démocrate bu nganda la kii dafa dafa martyr pour le cette nation di indi ay baat yoo xam ne dañ lay nax dara du ci dëgg dara dara dara dara xool leen baat yi rek yooyu la ñuy naxee fii ku dee ngir diine moom kooku kooku du tus parce que dañuy yëkkati àdduna daaneel mbiru diine bëgguñu kenn dugg ci fan yii benn formation bu ñu doon def benn waaye mu ne ñu ci seen dëkk dañu fol benn ministre boo xam ne ministre bi laïcité la gëm dañ ko indi jox ko éducation nationale pour mu yàq diine ji parce que éducation nationale mooy ministère boo xam ne suñ ko joxul jullit dëkk bi yëpp lay yàq waa ji benn mu def ci. éducation nationale 15 ans ministre boobu mu war a pare nag journaliste yi wër ko nag na ko yow tus nga fi deful lan nga liggéey li taxoon ñu jox la réew lii bi gisuñu dara mu ne non li ma liggéey après vingt ans ngeen koy gis di ngeen gis góor dootu leen ko xàmme ngeen gis jigéen dootu leen ko xàmme loolu laay tontu pare naa ci gis ngeen. li ma liggéey nii ngeen ma jox vingt ans maanaam jëmbat naa bu amee ñaar fukki at day sax màgg di ngeen dem ci seen réew mi ba jigéen bu solootoo dootu leen ko xàmmee góor góor bu solootee dootu leen ko xàmmee jigéen te kooku ma doon waxal nii lii nii ci réew araab yi la dëkk de ministre boobu arabe la dëkk boobu nekkoon arabe la mais yéen léegi loolu jàng leen ko ci seen nation yéen jàng leen ko ci seen société yéen ñii tey fi ñu toll ndax góor ak jigéen xàmme ngeen leen léegi ci sol léegi jigéen ñi ngeen gis ñuy check down jigéen man la man la romb nii nga taxaw nga gis tubéy ji nga gis li mu jiital fii ci biir indi ko ba nii kooku sax mooy ku baax ki keneen ki moom day bàyyi xuntu xuntu lu ñuul lu kukku loolu nekk fucc biti boo nee mu ne la yaa ko xool xoolu la gis ngeen li ñuy yàq moo tax bu fekkee ne ñun góorgóorlu wuñ di toog rek ñu gëmul yàlla gëmuñu yonent xamuñu programme diine bi bu leen yaakaar ne alxuraan bi yàlla da ko indi rek pour julli déedéet lii dañ ko war a dund dégg nga yàlla lu mu wax kutiba alaykumul qisaas dañ leen a sant dañoo farataal ci yéen fayu li ay luwaa la atte la ni ñoom ñuy toogee fee naan article nangam nangam ak nangam lii lool la imam bi day toog ñu indi ku rey nit ñu ne lu ci yàlla lan la loi bi lan la tey benn waaye day rey nit ñu indi ko tribunal ñu ne juge bi bismillah kii dafa rey nit ñu génne affaire yi ñu enquête xool ba xam ne moom la nga dégg ñu ne waaw bismillah ñu ne ñu gisee ñu gisee ñu jóg dugg seen biir néeg fekkee waa ji boos la am na alal kër kër na ñu waa waa gisee nañ dañu ne woon kii dañ koy tëj vingt ans mais léegi daal gis nañ ne moom juróomi at baax na ci voilà ku rey nit juróomi at ki mu rey juróomi at juróomi at yi at yi nga xam ne mu ngi mel ne juróomi at balaa ngeen di xam ne juróomi at du dara photo leen ngeen denc ba at bi jeex ngeen génne ko day mel ne tey nga ko def di gis nga bokk ba bokk ci aaxiru misaalu aaxiru zaman bés yu gaaw yi semaine yu gaaw yi weer yi at yi kañ ngeen doon wax ne suba la le premier janvier te yéen a ngi ci ñaata li leen doon ne dafa gaaw xoole école bi mu ubbee ba léegi am na ñu jàngiwul léegi école tëj déjà fin du mois bi la ñuy def deuxième composition lu fi desati mois de juin juillet école tëj kon nañu delloo suñu xel ñu xam ne aaya yi suñu borom subhanahu wa taala lim ñu ci wax moo ci am mooy lan wala kum am ngeen fil qisaasi ci fayu xayaatun dund su ngeen ko defee rek di ngeen dund en paix di ngeen di dund jàmm yaa ulil albaabi yéen borom xel yi laallakum ndax yéen tattaquna ngeen mën a ragal yàlla gis nga ku rey nit nañ ko rey xam ngeen bu ñu ko defee lan la ñuy jural ragal yàlla woor lan la ñuy jural bu ñu ko defee ragal yàlla tabaski lan la ñuy jural ragal yàlla jaamu yàlla lan la ñuy jural ragal yàlla aj màkka lan la ñuy jural ragal yàlla yii ma wax yépp mu ngi jeexee la allakum tattaqun kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum walakum fi lqisaasi hayatun ya ulil albaabi laallakum xuzu ma ataynakum bi quwa waskuru ma fihi laallakum fatazawadu fa inna xayra zaadi yëpp taqwa la lay yóbbu ku rey nit nañ ko rey sax bu ñu ko defee léegi dëkk bi ragal yàlla kon kenn dootul yor sa jaasi ñëw dugg ci oto ne tegal fi yow tegal fi yow tegal fii fekk jigéen ju toog nga ne ko tegal fii ana li nga takk mu ne la takk ma dara nga ñaas ko jaasi ji ne ko jigéen day takku loolu moo xew Sénégal gis nga indi indi tegal fi am na benn xale boo xam ne fii la deewee heure yii dafa nekk super agresseur yi dugg ci super bi génn jaas yi super bi di daw mu tëb fenêtre bi ci tali bi mu tëb beneen oto ñëw rey ko bi mu tëbee daanu rek beneen oto ñëw jaar ci kaw kooku sabab mu dee fu mu jógee ñàkk sécurité wallahi bu ñu dundoon l'islam nit dina ñeme ñëw ci parkingu stade bii lal fi si jaadaam tëdd njaganaayoo saakam bu yeewoo fekk saak bi ci ay tànk mais xoolal tey da ngay ut da ngay defar kër def fenêtre yi giri giri bi sax doyul nga def ko fenêtre weñ buntu yi miir bi nga def ci xottu butéel wala nga def ci ay weñ yoo xam ne nii la def ut garde ut pistolet te terewul gaa yi ñëw sànq laay dajeeg benn mbokk borom bitig buy ñëw fii tafsir mu ne ma toxu naa léegi fii laa nekk ma ne ko lu xew fële mu ne ma dañuy dajj rek di sàcc islam daf ñuy aar yàlla lim ñuy wax du aaya yu ñuy barkeeloo du lu ñuy takk du lu ñuy ziyaara di ko diw waaye yàlla lim bëgg ñu dund ko pour ñu am jàmm mbokk yi lii moo doon dars tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu